une licence de de truc pour avoir tout simplement informé Sénégalais yi tey tout le monde keroog lu ñu doon def moom la ñu ñëpp a def tey rajo yi moom moom la ñu ñëpp a def tey je pense que bon euh, peut-être que euh, benn édito commun je pense que c'est peu de choses euh, nous sommes dans un moment boo xamante ne charnière de notre histoire où il faut assumer war nañu. assumer benn la ci ponk yi nga xam ne. benn la ci ponk yi oui quand on. conseil conseil des médias am na. waaw mais waaw man quand on arrivera peut-être à faire un jour deux jours sans information de pays sans télévision. peut-être boobu tamit c'est prévu. voilà man xam nga waaw je pense que euh, moment bi jot na vraiment pour que nous commencer réfléchir waxante dëgg. parce qu'il y a des choses yoo xamante ne qui se sont passées depuis samedi qui étaient totalement invraisemblables si suñu république. te loolu moo fi xew à partir de ce moment là je pense que quand rien plus rien ne va dans le sens bu mu dem ñun ñi dañuy réer te loolu moo ñu dal ñun ñi dañu réer la fois dernière je faisais jàkkaarloo ma ne la woon j'étais dégoûté de faire ce jàkkaarloo de vendredi passé aujourd'hui c'est un gars un homme complètement fracassé qui fait jàkkaarloo donc dans quelque temps après ce qu'il va continuer à faire jàkkaarloo de peur que dina dem ba nga xamante ne au-delà d'une certaine date am la muy wax ñu ñëw ko jël ko yóbbu ko fa lañ jëm nous sommes arrivés à un moment boo xamante ni de radicalisation et dama doon ne en politique tout sauf radicalisme parce que ce n'est c'est-à-dire loolu rek nga dul def la radicalité moom nga war a kii mais justement nous sommes en pleine ère de radicalité pourquoi parce que benn système moo fi nekk benn attitude moo fi nekk qui fait que nit ñi ku si nekk léegi yaa ngi xool dans un mode de défiance si doo gisee ñoo xamante ne ñoo gënoon dal bu ñu demee ba commencé di fupp nga xam ne on a un sérieux problème donc vraiment encore une fois di mastawu journaliste yi tey euh, il faut il faut apprendre à se maîtriser toujours dans les mouvements de foule toujours gestion de mouvement de foule dafa dafa ànd ak loo xamante ne gestion du stress dafa am gestion du stress de la foule boo xamante ne de bouger et qui plus est journaliste yi ku leen gis tey on les reconnaît facilement ça ne nécessite pas un certain certaine forme de violence yoo xamante ne kooku maîtrise manque de maîtrise la et souvent il y a des on organise même des des ateliers de sensibilisation de qui de part et d'autre avec les forces de défense et de sécurité pour éviter genre waaw mais le terrain le terrain d'air quand tu es sur le terrain terrain aptitude terrain aptitude la quand tu sur un terrain il y a une question d'attitude et d'aptitude l'aptitude c'est pouvoir face à une situation nga mun mun nga mm-hmm. nga ne teg mu ngi mel na boo demee par exemple le euh, boo demee fële euh, j'ai oublié le nom encore du palais euh, de la reine la boo ñëwee devant le euh, Buckingham Palace Buckingham Palace boo ñëwee ba foofu nga fekk garde garde bi taxaw nii mun nga ñëw def ko nii lépp du bouger du la xool sax il est formé pour ça il est pour ça mm-hmm. donc ça veut dafa am ay niveau yoo xamante ne de de d'aptitude de gestion du stress léegi boo toogee di dégg di kii c'est pas parce que tu as entendu un certain nombre de choses ngay génn si sa gestion du stress loolu pour def loo xamante ne da lay ëpp loxo et puis après c'est des images et der nous sommes dans un monde boo xamante ne kaddu bi communication bi dootul wax mouvement bi la, la communication paraverbale quand on voit aujourd'hui le policier prendre la fille xëcc ko buddi sandi tout ça c'est pas une belle image elle mu ñëw par derrière c'est par derrière la koy xëcc la koy buddi di ko sandi par derrière c'est pas une belle image pour la police ce pas une belle image pour nous et après ça crée quelle frust créer comme source de de sentiment et de ressentiment alors qu'on doit dépasser ces choses-là mais encore une fois boo ko dépassionné tu un niveau de gestion du stress ce sont beneen affaire bi fokk ñun aussi journalistes nous comprendre beneen affaire c'est que quand tu te retrouves avec des forces de l'ordre là qui sont heures du matin jusqu'à 14 heures jusqu'à 16 xam nga il faut savoir gérer aussi certaines choses parce qu'on a toujours fait le terrain reporter nag booy def terrain dafa ànd aussi ak yenn yi c'est comme quand un reporter va à la guerre il est derrière le soldat qui tire mm. bu la waxee tu vas couvrir la guerre nga ne non man dem couvrir guerre pourtant dafa bokk sa liggéey donc je pense qu'il y a toujours je parle d'attitude et d'aptitude aptitude à pouvoir gérer en stress une situation te loolu dafa laaj du bëri dafa laaj entraînement dafa laaj entraînement répétition dafa laaj aussi kan ngay teg ci terrain bi parce que quand tu mets des jeunes yoo xamante ne ils n'ont aucune la chose chose qu'ils connaissent c'est courir tirer courir tirer s'ils sont le sur le terrain avec la nervosité avec la fatigue ak état de stress bu ñoo ma xam ne dañ fay nekk boo ñëwee dajee ak ñoom on risque d'aller vers des confrontations totalement inutiles donc il faut savoir quand cela ils sont là pour maintenir maintenir l'ordre il faut savoir quel est leur état de stress boo xamante ne mën nañ sa nekk yow bi ñëw di def sa liggéey nga xam lu ngay def pour que confrontation boobu bañ daal kooku nag c'est une intelligence c'est une gestion intelligente du terrain mhm. mais ce que j'ai vu aujourd'hui ça montre que d'une part on a perdu le contrôle maanaam contrôle ba nga war a am da nga ko ñàkk et après ça mène quoi euh, xale bi bu ko dóoroon bu gaañoon ko tey déjà avec tout ce qu'on Euh, bu ñu waree wax aussi aujourd'hui que la presse sénégalaise est maltraitée que les images circulent dans le monde du lu baax pour suñu dëkk. boobu yow laay ñëw en tant que directeur de programme d'une télévision que ñuy tëj au Sénégal une télévision.